jàppalante nii ci magal gi nii rek ñu ngi maa ngi dégg ndakaaru koo xamante ni bi euh, ak jarbaatam xaw ma nuñ def xaw ma dañ leen a rey xaw ma kenn xamul nu mu doy xam nga yooyu yëpp ñaaw maa ngi seetaan kenn ci bi moom mu ne moom dégg na bi na ak yuuxu foofu waaye yëpp tey ba mu déggee yuuxu ga bu jëloon téléphone am woo rek wala mu woo gendarmerie rek problème boobu c'est kon il faut ñu bàyyi seetaan gi hmm. bàyyi tànk xam lu bi man de dëkk naa Europe ay réew bu xaw a yàgg mais tubaab bu la gisee ci buntu bâtiment benn yoon ñaar yoon boo fa demaatee une troisième fois police la fi fekk juru sax moom kenn du ci kenn du ci feeñ yoonu kenn du ci nekk fi nga taxaw pour suivre la police di fekk ne laaj na yow yaay kan ak loo fi def laaj na say papier boo ko yorul mu tàkk la yóbbu boo amee indice boo indicee mu mu jël la yóbbu kon nag boo ko defee ñun sénégalais yëpp maa ngi ñaan toute la population sénégalaise ñun ñu am taxawaay boobu ñu taxaw taxawaay boobu mu ngir dansé bi nga xamante ni ñun ñëpp dañ cee toog mu nekk bombe à retardement ñu amorcé ko ñu ñu tas loolu li nga xamante ni dañoo jóg organisé wu ngir mën fi def def ay ñaawte ñu fexe ba loolu jóge ci suñu réew ñu dund jàmm sénégalais jàmm lañ ma sa xam fii Sénégal dañ daan dem buntu kër yi ñëpp ubbi ku bëgg a lekk heure lekk kenn daawul tëj waaye léegi dem nga ba kër yëpp dafay tëj kenn ñëwetula ubbi sa buntu kër loolu nag fi léegi mi nga am coono bi day gën di yokk ndax yërmande mi ngi commencé di denc ci ñun xasante beeg waxante lu ñaaw waxante yàlla yoo xamante ne bi ëpp na sax di dégg bay àgg ci di ko nettali yàlla ñu yàlla sama borom dimbale mosul ci yooyu di leen sant bu baax nag journaliste yi yéen ñëpp euh, ñi fi nekk ñëpp seen TV